moo xam ñi ne ci wàlli nguur gi la ak lépp la ca aju ci nit ñi ñu jiite ak fitna yi nga xamee ne ñu ngi leen koy teg mu doon loo xam ne lu metti la li ci gën a doy waar ëpp doole ci ñooñu nga xam ne ñu ngi ci kaw yépp dundoon nañu dund ni baadoo la ëpp doole ci ñoom jóge ci ay famille yu ñàkk waaye bu ñu demee rekk ba am doole nguur gi jox leen doole dañuy fàtte baadoo lay te fàtte yi tamit ne baadoo lay ñoo leen teg ci seen palaas su ma waxee baadoo lay nag mooy rekk ñi nga xamee ne mooy ñi amut jubluwaay bi duhut leneen lu ñaaw waaye ñi nga xam ne xëy na seen loxo jotu seen gannaaw ñi leen jiite nag yàlla may leen doole nguur gi taxawu leen ba luñ bëgg ñu def ko di leen toroxalee nu ne li indi wax ji tey dama doon seetaan benn vidéo ci Sénégal ci ay nit yoo xam ne dañu dëkk ci benn barab yàgg faa dëkk jënd seeni kër ñu toog bis rekk nguur gi ñëw ne dañuy daaneel kër yooyu noonu aman na yëgaloon nañ leen ko sax balaa waaye li ma bëgg a wax rek mooy baadoola bi bu kurti kurtee ba am lu ndawam nanga ko ko bàyyee dëkk bi yaatu na suuf si yaatu na lépp lu ngeen bëgg a def mën ngeen koo def feneen fu uteeg fi nga xam ne nit ki fa la jënd dëkk fa nekk fa njabootam ba xale yi magee fa nga bëgg a ñëw rek benn bis ne danga leen di génne foofu te bu fekkoon ne sax boo leen génnee di nga am foo leen yóbbu nga ne waaw waaye da leen di génne bàyyi leen ñuy wëraalu walla ñu uti fuñ luwaas loolu nag tooñ la te tooñ baaxul sunu sëriñ daf ñuy wax ne mooy tëndiku leen tooñ ngir tooñkat yàlla du ko dimbale mu misaalal ñu tooñkat mu ne mu ngi mel ni koo xam ne dañu takk tànkam takk loxoom sànni ko ci pax kooku pour ñu dimbale ko mu jugee fofu du yomb kon ba taxna togn yi nga xamné ñu koy tooñante ci suñ biir duhut lu rafet tay tamit suñ bëggé suñ réew yi develop fokk rek ñu jox nit ñi cër jox doomi adamay cër ku ci nekk cër ba mu nga delloowaat ko ko yonent bi muhammad sallallahu Alaihi Wasallam moy jangale kat bu mag bi que lepp lo xamene nonu lañu wara nekké rek jangal nañu ko dana koy wax mané gis nga européen si teranga biñ am xéewal biñ am yépp amé wuñ ko si nenn lu ci jangalé yoonent bi muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ñun nak danañ la jangal téré yi firil la lu né waye when it comes to ne pour ñu practice practice ko def ko practically du mëna nekk mukk ngir ku ci nekk yaangi gis sa bop yek sa bop yek sa doole gëm ne yow li nga bëgg mooy li am te du noonu da nga xeeb nit sax ta fekk ci darajaam nga amee teranga bi nga xam ne nga am danay wax dara léegi-léeg nit danay am yenn kàttan yi bu ci yëgul yàlla rek wallahi dafay yaakaar ne lim man moo ko mënal boppam te fekk demeewul noonu lépp loo xam ne nii loolu nga man ci sa kàttan rek ci kattani yàlla subhanahu wa nga ko mënee kon nag boo delluwaatuwut ci yàlla rek lépp loo def rek erreur lay doon te sun nguur yi danaa koy wax duñ ko mun a taxaw jiite ko am jàmm feek teguñ ko su yooni diine teguñ ko su yooni yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag bokk na si tabaxi jàkka tabaxi juma di tudd yàlla di jàng alquran waye bi ci gëna am solo moy jox doomi adama bi ciirum jàppale doomi adama bi liggey ak mom ci xelatam bu rafet waaw teral ko ta xamne yàlla daf ko teral su ne wala khad karamna bani adama dafa teral nit nit ku nek la wax nag génnewu ci kenn du julit bi du ko ku du julit bi ngir yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam nonu la daan dundé ta dafa fonk ku nek ñu netali ci xissa sallallahu alayhi wasallam mus naa toog ak saxaaba yi yahud yi di romb ak seen niw mu jug taxaw ñu laaj ko sallallahu alayhi wa kii yahud la yow ngay jullit lu tax nga di ko taxawal mu ne ko du lim doon yahud may jullit waaye taxawal naa ko ngir lim doon doomi aadama màggal na ko ngir lim doon doomi aadama yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa def na loolu kon ba tax na suñu xoolee ci européens yi nga xam ne ñu ngi jéem pour dabu leen pour ñu jot leen nag du yomb mukk nga gis ñoom ni ñuy doxee ak ni ñuy joxee doomi aadama cëram ba nit dina fi nekk sax du am dara sax waaye danañ la dimbale ba nga taxaw ba li nga soxla yépp ci sa dund nga mën koo am te doo dem wëraalu doo ko ñaani feneen moo tax war nañoo seetaat suñu bopp bu ñu yaakaar ne bu ñu jiitee ne ci kaw nit ñi dañu war di rang ñu di leen di jox foo toog ñu tagg la gërëm la nga yëkkate xaalis bi di baatare te fekk ñeneen a ngi xiif di sonn te nga mënoon leen dimbali ci seen kattan nga ne développement dina fa am déedéet xol bu métti merexante soxorante añaanante yooyu rek mooy nekk ci suñ réew yi te bu ñu waxantee dëgg ngeen déggee ma xel bi ngeen gis ne ñun loolu lañ fay dund ñu ñàkk ñaa ngi mere ñi am ñu mere ñaa ngi naj ñi am fitna yooyu bakkañ fitna yooyu bakkam te si Sénégal bi gi ma gën a xam loolu fa nekk waaw daaneel nañ fa ay këri nit man xam naa ci dara wu fiir si nous nga tabax ba foog ne yaa ci nekk ñu ñëw daaneel ne nguur gi ñoo ko soxla looloo ngi daw senegaal wala nga jël benn kër jaay ko fukki nit waaw yu doy yooyu te ñen duñ ko def lu dul ñen duñ ñen nekkul di ko def lu dul ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi ñoo nekk ci kaw pour dimbale nit ñi ñu fi soxorante yooyu tappalante yooyu añaanante yooyu ñu di ko def bëgg ne danañ am développement du am ak ni ñuy yàqante ci social media bi fu ne waaw soo nekkee ci politique yaa ngi yàq keneen doo wax développement ni réew mi nu réew mi di demee ci kanam waaye yaa ngi yàq dari keneen pour rek yow nga am jàmm ñu ne ñun danañ am jàmm ci loolu déedéet duñ am jàmm fokk ñu delluwaat ci suñ góor yàlla yi waxtaan ak ñoom ñu teg ñu ci yoon jàngal ñu ni nga xam ne noonu la unité moo saa salaam governe woon am am am am government bi mooy diine bi ni ñu jàngale woon sunna bi ak sariya bi ba nga xamee ne ñun suñ ko dundee rek danañ am jàmm waaw waxuma sax ñu dund sariya ci boppam waaye li unité bi doon jàngale nit ak nit nu mun a nekkee nu ñuy mun a dimbalantee teg ko ci yoon loolu buñ ko defee danañ am jàmm te xam ne tubaab yi li ñuy dund loolu lay yonent bi Muhammad sallallahu alayhi jàngale kon nag buñ ko yaakaar ci téere yi tabaxam jumaa mu dul jeex te fekkut ñu jàppalante bëggalante bëggante dimbalante te yàlla tax feek defuñ loolu rek duñ am jàmm di jégalu ci kàddu yi lépp lu ci yàqu ngeen xam ne suma xam-xam bu matari la waaye ci rafetee ngeen gërëme ko yàlla ak yonent bi waaxiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaam